te tey bokk na ci dat yi ñuy taxaw ci atum 2013 ñu fi taxawalee ANAMA muy agence nationale d'appui aux marchands ambulants euh, ngir ñu utal euh, ñii di marchand yi ay bërëb yoo xam ne fa la ñuy dem ngir ñu mën faa toog ngir seen liggéey mën a wéy loolu la ñuy fàttaliku ak yeneen xew-xew 12 août at yu wute ñu dellu si. fukki fan ak ñaar ci weeru août atum 2022 professeur Aminata Cissé Niang la ñu tabb doyen ca faculté des sciences juridiques et politiques bu UCAD moom nag mooy jigéen bi njëkk nekk doyen benn faculté fii ci université Cheikh Anta Diop muy professeur agrégé en droit Aminata Cissé moo fa uutu professeur Alassane Kanté ci poste boobu fukki fan ak ñaar ci weeru août atum 1985 Boeing 747 bu doon def vol 123 te waa Japan Airlines moom ko moo daanu ci wetu mont Ozukata nekk à 100 kilomètres de Tokyo réewu Japon bilan ba nag defoon na 520 morts ci 524 passagers ya nekkoon ci avion ba sooy seet nag crashu avion Japan Airlines boobu mooy accident aérien bi gën a métti ci histoire. fukki fan ak ñaar ci weeru août atum 1855 moo ne woon défaite bu mag bu armée française amoon ci réew mi partisans yi nga xamante ni si ñoo doon ànd ak El Hadj Omar Foutiyu Taal ñoo dóor dóor yu metti troupe coloniale française ma nga xewee woon nag ci ab jàmmaarloo gu metti gu amoon ca Manayel féete wetu Bakel fukki fan ak ñaar ci weeru août atum 2015 ci république populaire bu Chine ay explosion yu metti lañu seetlu woon ci benn entrepôt chimique bu nekk Biné ay boori 23h30 ci guddi gox boobu nag dafa nekk zone économique bu am solo lool ci port Tianjin ba nekk foofu naka noonu nag lu toll ci 173 personnes ñàkk nañu ci seen bakkan 800 jële ci ay gaañu gaañu ba nag amoon na ci biir lu toll ci 2400 tonnes produits toxiques yoo xamante ni si baaxul ci wergu yaram ak 700 tonnes cyanure de sodium. fukki fan ak ñaar ci weeru août atum 1987 def na fanweeri at ak juróom-ñaar Awa Diouf Ndiaye di athlète sénégalaise am médaille d'or ci saut en hauteur dames ma nga xewee woon nag ci quatrième Jeux africains ca Nairobi réewu Kenya Awa Diouf Ndiaye suu ba mu defoon nag yeggoon na ba 1 mètre 80 mu nekkoon exploit bu rëy jamono jooju. ñu taxaw ci fukki fan ak ñaar ci weeru août atum 2013 si la njiitu réew mi Macky Sall sosoon agence nationale d'appui aux marchands ambulants amanaa nag li ko taxoon jukko mooy wut ay bërëb ak i tabax ay place yu ñuy jaayee maanaam cantine ngir marchand ambulant yi mën a am place itamit nag assuré leen kaaraange ak hygiène waaye anama mi nga xam ne dafa mel ne amalul woon njëriñ marchand ambulant yi dañu ko mujjee supprimer si lu matul sax at muy janvier atum 2014 ñu samp rek ay laaj yu ci mel ni ndax anama mën nañ koo jàppee échec dee sax saafaraal nekkinu marchand ambulant yi moo ko taxoon a jóg ndax mën nañu koo jàppee tamit ab preuve ci agenciarisation bi fi nguur gi doon def nguur gu bees gi nag ndax war nañoo nekkaat si yoon boobu wala ñu rationaliser ngir mën a gën a xarañ ci seen ay jëf ban rupture la ñu fi war a teg ngir état mën a gis boppam bu baax ci liggéey bi rawatina ak efficacité opérationnelle. def nañu seen agence boobu eh, ubbi ay bureau dépensé ci xaalis yu bari mais gisuñu ay parce que toujours dañ koy def rek genre fooykaay la ñuy def agence yi dañ koy def fooykaay parce que li nga xam ne moom la laaj ci ay moyens du leen jox moyen boobu euh, man li ma gën a gëm mooy agence du faj soxla euh, euh, réew mi non seulement pour marchand ambulant yi mais pour xëyu ndaw yi tam donc li ñu mën a def ak li ñu war a def mooy nañu fexe pour xam ñaar benn bii mooy nañu wax dëgg marchand ambulant yi dëkk mënul fonctionner su fekkee ku nekk lu la neex ngay def tali yi dañ ko def pour oto yi trottoir dañ ko def pour piéton yi waruñu nangu fépp ngay gis ay marchand ambulant ñu toog nekk ci kaw tali bi nekk ci kaw trotoire bi mais comme ñoom li tax ñu dugg ci affaire marchand ambulant ñàkk pexe la état nag dafa war a gëstu pour am solution boo xam ne dina ko permettre pour ñu mun a jël leen foofu ñaar la ci li ma gis benn bi mooy il faut que ñu ta tabax ay marché yu bees yu moderne parce que suñu marché yi du ay marché yoo xam ne wax dëgg la ay marché la maanaam ay grand place la rek foo xam ne oto dina fa jaar charrette dina fa jaar euh, jur yi dinañ fa jaar lépp dina fa jaar loolu jaxasoo boobu muy indi nekkul loo xam ne dafay faydal dafay permettre ñu mën a dindi affaire u marchand ambulant yi donc marché fu mu ci nekk rek dañ ko war a tabax mu nekk lu rafet lu set nga xam ne képp ku fa dem wala képp ku bëgg a jaay mën nga am bërëb boo bërëb place boo xam ne dina la permettre nga mën a jaay donc ça veut dire que première chose état bi dafa war a jël marché yi def leen ay vrai eh, liggéeykaay ni pas simplement ay place boo xam ne foo am place rek nga ñëw sànni sa sa sa sa mbag yi sa bagage yi pour mu mun a jar donc loolu dañ ko war a seetaat ñaareel bi mooy état lu mu war a def mooy fexe tey pour yokk maanaam loxoom moom ci boppam ci wàllam xëyu ndaw yi gën a recruter ay fonctionnaires gën a euh, fexe ba lu li nga xam ne moom moo koy dépenser ay marché yu mu am mu gën ko jox ci waa réew mi entreprise yi nga xam ne dañuy yëngu ci réew mi parce que ndaw yi yi nekk marchand ambulant li ñuy def noonu du lu leen gën bu ñu amee xewel feneen dañ fay dem donc xewel yooyu nag loolu moo war a ban gën a bari ci réew mi su dul loolu du ñu mun a am wax dëgg yàlla pexe wala solution bu bu yàgg ci ci li ñuy def saa ñu ñu ci dugg rek ay politique moo ci lalu Eh, ba tax ne ñoom seen soxla du faj xaalis bu ndaw ba nga xam ne état yor na ko na ko sandi parce que du am du am benn njariñ nii pour marchand ambulant yi nii pour askan bi Euh, Chérif alors ANAMA bokkoon na ci agence yi ñu taxawaloon euh, ngir euh, jàppale ndaw ñi waaye ñetti at ginnaaw bañ ko tegee lañ ko tas ñuy laajte ndax maanaam xeetu doxalin boobu ndax moom mooy bu baax bi ngir fexe ba taxawu ndaw ñu soit ci wàllu liggéey wala sax ambulant yi ci boppam on se rappelle dernièrement amoon nañ fi ay jafe-jafe tamit ñu leen di yëkkati ci bërëb yi ñu nekkoon. Hmm, en principe le 9 bi sax ñoom am na ay association de marchands a moo ñoom ñoo amoon boobee initiative anama je pense que bu doon gis nañ njëriñ la doon katas parce que après Macky Sall bi mu ñëwee day rationaliser li nga xamante ne mooy la dépense beeg agence yi ci leen ko daal di euh, jëlee fii je pense que problème moo tëggu marchand ambulant yi moom ces dernières années problème la boo xamante ni kilifa yi ba léegi amaguñ ci saafara même si am na ay initiative pour li nga xamante ne moom mooy wàllu agence boobu ak collectivité territoriale yi li am solo ba am solo nag je pense que turu marché ambulant sax déjà tur bi il faut kon ñi nga xamante ni ñooy tabax ñu tabax ay marché yoo xamante ni dina méngoog jamono ba nga xamante ni gone yi ay place yu mën a jaay ñu bañ a nekk rek jafe-jafe yoo xam ne soit dañuy occuper lii di euh, place yi surtout mbedd mi nga xamante moom mooy la voie publique parce que moom mooy seen jafe-jafe ba saa yu déguerpissement amee ñoom ñooy subir les conséquences ci yooyee nga am foo am na ci ay recasement loolu problème bi foo xamante ni leen fa mën a ñu ngi doon wax ni foofa client amu fa gis nañ tamit ñi ñi nekkoon Sandaga am ñoo xam dañ leen yóbboon champ de course ba léegi marché bi quand c'est fonctionnel euh, même si on n'en parle pas beaucoup te foofu aussi gis fa ay cantines yoo xamante ne jógee Sandaga ñu fa di liggéey donc c'est des initiatives à multiplier continuer di ko defal bi nga xamante ni dinañ a réussir processus de recasement bi pour ñu mën a am fa mënta mënta ñàkk ces collectivités territoriales parce que ñoom ñoo am marché yi gestion bi marché coow li nga xamante ni moom lay ci jur ak ñi nga xamante ko ci tàkk audit yi ci jot def te loolu mënut a tax xale yi am loo xamante ni ci mën a jàpp sinon éternel recommencement lay nekk. Hmm. Abdoulaye. ndem si yàlla si na fi de. mais gis euh, le fait même de nangu statut bi ba mu da war a doon lu <laughs> lu permanent ba pare sédentaire loolu lañ war a njëkk a lijjanti. ambulance boobu dafa war a doon loo xam ne transition la rek nit ki jaar ci jàll mais finalement dafa nekk loo xam ne ambulant bu sedentaire la kooku ambulant watul tablier gis nga yëpp dañ koy confondre ci biir ambulant parce que encombrement bi tablier yi la mhm. ak excroissance su magasin yi ci seen bopp <laughs> yor magasin yor trottoir ba finalement teg sax ci kaw tali bi yooyu yëpp ci encombrement bi la bokk te te ñi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk mooy ñu ñu tuddee te ambulant mm-hmm. yooyu yëpp dañ leen ci dugal tablier yi ambulant yi ak yeneen ak yeneen mais commencé guñu sax pour wut solution bi parce que dañu accepter situation boobu mu doon statut boo xam ne presque c'est permanent or li ñu war a fexe mooy bu ci nit nekkee mu doon un temps mu jàll ci leneen mm-hmm. mais tant que trouvé wuñu transition boobu évidemment dafa daw yaram sax xool waxuma la ambulant nekk sax ci marché bi mais xoolal situation beneen ambulant par exemple yi nekk ci tali yi ak yooyu. bon maanaam les vrais ambulants ñi nga xam ne ñoom ñooy faufilé wu entre les voitures di jaay ak yooyu et li ci doy waar mooy sur un plan économique ñooñu ay acteurs de développement la ñu war a doon <laughs> waruñu nekk sax ay acteurs dans la distribution parce que c'est des bras valides dañoo war a nekk ci production de richesse mais finalement. produire ñu mais acteur de distribution or distribution chaîne boobu mën nañ ko mën a réduire de telle sort que sax mm. du mooy employé xale yi mais boo gisee ñi nekk yëpp ci kaw tali bi mm-hmm. cent personnes di jaay la même chose mais il est clair que bu ñuy wàccee le soir ñaar ñett ñoo ci gis seen bopp te loolu du statut boo xam ne war naa wéy. d'accord. Mm, mm. Ah, donc ci rek ne puis pour régler ce problème là aussi euh, foog ñu xalaat euh, région yi parce que. exode rural bi moom moo moom moo andi lii ñi nga nekk ñi nekk fii ambulant yëpp soo xoolee plus de quatre-vingt-dix pour cent dañoo jóge seen dëkk ñëw fii di euh, di wut lu ñu suturloo je pense que nag suñu demoon comme ni ko Ablaye waxee ba ñu am ay unité de production yoo xamee ni ñi ngi ci biir région yi euh, gox bu nekk fi nga spécialisé wu ñu wutal la fa problème de l'équité territoriale usine boo xamee ni dina mm. mën a absorber ñu bari ci euh, gune yooyu je pense que quelque part ça donner ou bien régler une partie du, problème ambulant euh, hmm. yi parce que à ce rythme là ni mu mel nii euh, pour nga régler ko dina jafe lool parce que ñenn ñu demee tamit tu vas voir ñeneen yeneen vague ñooy ñëwaat oui c'est ça merci beaucoup Cheikh alors euh, léegi dañuy jàll ci xibaar yi ñu tënk ko sëñ Cheikh xibaar yi